ci dara lu nu naqadi rek la na mère de famille bu nek bu doon sey ni nga am sa responsabilité man garder say njabot mais lu nuy def du nu taggo da ngay tok ba yag rek deg ben man mu anduma ci ak ñom vraiment muy man muy benen mère bu responsable avec sa famille du won nangu loolu mais xeyna xalé yi non la leen yalla indi mais batay daanu dabu sunuy njabot di waxtaan ak ñom di def ak ñom ah euh, man lolu mom franchement baye lu ko gisee moy rafetul quoi. rafetul parce que yow boo demee géej wo say parents ci wax nga dem ay yenen conséquences fekk la ci tu vois loolu doon na lo xamanteni ni tamit xam nga lu bizarre lu lu lu yondal man la xam na a waxee. barki démb maa ngi dégg xawma côté mbaw ay trois boy yu lab fofu affaire yoyu bon ay bese yawo da ngay dégg ay xalé yu lab fofu yo xamanteni sax amana information yoyu du ngeen koy am. mais vraiment yooyu gars war nañ ci jël ay mesures dal ci xalé yi dem plage yi. solution dal moy ku nekk daal wo say njaboot di len contrôler ak di len yedd. loolu moom mooy solution bi. du nguur gi mooy jël ay solution euh, parent yi seen bopp ñoom ñoo war a jël seen propre responsabilité parce que ñoom ñoo jur xale yi waaw ñoom ñoo jur xale yi bon di saytu xale yi fi ñuy dem ak fi ñu dul dem loolu lu am solo la daal. xale de am base am éducation parce que xale soo ko telee xamee yàlla rek dina xam fu mu teg tànkam mais xale su fekkee teeloo ko xamal yàlla rek du ma xam fu du ma xam fu mu du ma xam fu mu teg tànkam mais xale soo ko teelee xamal yàlla rek. xam fu mu teg tànkam rek et eh, ñi rëñam ëllëg dina xam fu mu teg tànkam mais su fekkee xale danga ko bàyyi noonu orienté ko bàyyi ko su lu mu bëgg rek day lor boppam te ëllëg bu boobaa waajuram dina dem bu xam na xam ne yoo xam ne du ko neex. dañ leen war a dugal alquran ñu jàng alquran xale su suy jàng du am jot du def lu noona waaw xale dañ koy jàngaloo. solution boobu yëpp. moo doon lim la wax ne wutal sëriñ boo xam ne mbaa na nga wutal benn oustaz boo xam ne ñëw si kër gi di leen jàngal alxuraan au lieu temps bu ñu mënee dem géej ñu dem géej parce que chaque jour à partir de quatre heures sëriñ bi day toog ba six heures kon heure boobu doo mën a am temps boo xam ne dem géej